dal leen ak jàmm si seen rajo bi amul moroom rajo Ratanga ñu ni boo amee ku la dee sa bopp da ngay bàyyeeku si sa yaram waaw waaw sama gars yi ku am wéruwaay doo mës a li am solo du dëgër ak dëggu si say kàddu waaye mën a jëfandikoo sa kàddu ngir mën a am jàmm xarit yi Ratanga ak feneen kon boog ay ca ñu nga ca. sëñ bi maa ngi jégalu de comptable dafa nar a libre fi liggéeykaay la dara waxu fi nekk. lan lii tegu ma ko fi de. laaju ma ne pour kàlla de dama la gis nga teg ko fi est-ce que mën nga ko jëlaat. mais sa waay mais mën naa la waatal ni lii man moom ma ko man lii fi laa ko fekk. Eh, xam nga lan la dafa doy gaawal nga teg bi sa lii nii. waa mais yow xam nga ki ngay waxal booy mais carton bi tegul woon baax ci kaw comptoir bi man dama ko doon tegaat waaye ma ko mu teg fi carton bi nii léegi neen du ko jëlaat. ay yow tamit sëñ bi yaa gën a xam ni fii du marché te ngaa jël carton bi dem rek nee naa leen carton bi du pour man mais ci ban làkk ngeen di déggee seen centre bu doy waar bi su nekkoon ci yoon di ngeen fi teg ku mën a firndeel li ma leen di wax ni tegu ma ko fii centre baa ngi dox normalement foo mënte dem nag boo fa indee dara danga koy jox kim fa fekk kan ci fi amul kenn bi Jean Paul moo la gis bi ngay teg carton bi faaw nga toog xaar sa tuur jëggal ñu nag waaye yow xale bi nag nga def ko si biir yow xanaa doo ruus eh, eh, eh dafa doy nag léegi moom caaxaan jeex na dama bëgg nga jox ma sa tur yow itam man maay saytukat bi te dama war a gisee ak mu lay fii nag la bët yem ñëw ci sant boo xam ne day yootoo yegg niveau 3 fekk fi doom ju ñu sànni ci ay carton waa ji moom xam na wool ma docteur Moulay te nga gaaw ci li ma la wax soxna si. C'est la vie à Ratang, c'est la vie à Ratang, c'est la vie à Ratang, Ratang, that's life. lan la lu xew dama jàpp de. dafa am liir bu ñu sànneeti ci saalu maternité bi léegi nii. naka la wér gi yaramam def. xamaguñu Jean Paul mu ngi noonu di ko seet waaye dafa am beneen problème man ki ma jàppoon nii moo jur xale bi njëkkate évaluateur bi la mu ngi lay xaar ci accueil bi. looy wax ni saytukat bi mais ki mu nekkal daf ma ni woon balaa muy ñëw lundi prochain. mooy fii daf la bëgg a gis. may dem toppatoo xale bi. wante centre bi pareegul nag lan laa ko mën a woon fii mu saytu ko. Mm, may jëggalu de ndax waroon naa gis kii nuroowul ak kii sànni doomam. kii bu ñu joxee not bu bon tey jii mën nañoo fàtte niveau 3 bi. te su boobaa kenn dootul ñëw faju ci fii. mais war naa am xanaa lu ñu mën a def ba duñu ñu yàkkal dara. ndax li nga def ci liggéey bi boobu ba tey. moo tax ma bëggoon ko woon ni ñuy doxalee. ak li bees mooy laboratoire bi. mais mënuñu ko tàmbali lu dul semaine prochaine. lan laa mën a def pour dimbali la docteur. boum boum. chérie. chéri sama biir bi mooy métti mais bana mooy jot sax jégalu de mais est naa ñëw ci ngoon gi eh, waaw rendez-vous bi ba tey ci ngoon gi la mais xam nga rek waaw merci merci ah, nag waaye yow mu ba tey soppi woon ngay doxale Diop yow yaay saytukat bi <laughs> gis naa ni yaa ngi dëgër ba léegi mais bi ma déggee ni yow yaay la grand docteur Moulay miy jiitee centre de santé bu Ratanga ci laa ni duma la xaarloo mukk damay ñëw ci lu gaaw yaa ngi fàttaliku jamono université yaa tàmmoon di ma def genre surprise yi <laughs> cay Moulay <laughs> alors euh, ñu tàmbali bokk euh, xaaral tuuti ma jox la café même ma ñëw maa ngi lay xaar yaakaar naa ni mbir mi du yomb de yow na sa xel dal dinaa ko def comme ni nga ko waxee d'accord maa ngi ñëw. mais Moulay dëgg-dëgg sama waa ji nag séntu woon naa la fu gën a kawe fii centre bii méngoowul ak yow. liggéey bi ñuy def fii rek am solo. waaw baax na léegi fu ñu tàmbalee caytu. Ah, ndekki baa ngi nii. Ah, waaw. léegi li ma dese mooy raxas bool ak dem marché léegi nii. <laughs> jëkkër ji kenn xamul waay. <laughs> eh waaye yow ngay def ba heure bi nii sax. Emma de la neexul yaay dama buggoon demal ko marché. Hmm. ragal ni sax xanaa dangay waaj a dof. chérie dafa am loo soxla. damay ànd ak yow. non Emade xam nga ne danga war a dallu yow tamit. xanaa nag doo nekk fii di bàyyi xale bu tuuti bi da def la ko neex nii. mais yaay sama jabar ngay wax de man maay jëkkëram te maa ko war a jàppale. nii rek bés booy rëccu foo xam nanga nga jaar toog ju jees ci. ciao ah. li ma njortu dalul sama xel ba tax na dinaa yóbbu Emma village te doo ci mën dara taala eh. déet xanaa yow sa jóge bii Emma xelal c'est juste que xaw sonn te mënut a def lépp moo tax ma maa ngi xool est-ce que du ko war a bàyyi mu dem noppalu ji village sax. sa xalaat hm, la wala woo moo ko bëgg yóbbu village su <laughs> ko fa dara jotee nag lan ngay def kon allo super fajkat bi la wala allo docteur Okoba. Ramatu <laughs> foofu dinañ ko jàppale fii day bëri liggéey rek. waaw nekk fii war a toppatoo sa yaay fii ak village xam nga ni benn la. alors que su desoon fii Ratanga dinaa mën toujours di nekk ci wetam. ok xaar tomate. waaw assistant waxoon naa yaay duma fa nekk si suba si tamit waaw d'accord bon soo bëggee ma def li nga wax da yóbbu lii kër gi da nga xoolal moom bu baax ak xale yi lan ngay def ni assistant mais soxloo ma beneen tenue de travail bi ma yor baax na. déglul du pour nga bale mais nga def comme si yow yaay suñu prochain laborantin. xoolal bii ba xam dina la jàpp. lan mooy laborantin. yow solal lii rek. ah. ah yéen nekk di foofii. encore ah, ça kay jàpp si. mun lay mu ngi ak évaluateur bi te bu muy ñëw tàgguñu te kii moom ni ma ko gisee du ñu dara sax. léegi kii lu muy def moom. <laughs> moom de la ñu bëgg mu nekk suñu prochain laborantin. na nga fexe ba génn ci rek. xalaatoon naa la si sax tamit. waaw mais man ñiy faju laa amal affaire. jàpp si koox xam nga yow yaa gina mën a wax soo ko deful pour man nga def ko pour mun laay. <laughs> mais mais lan muy liggéeyu laborantin. Cheikh Dieng Talla marché mu ni ma indil ko ndugg bi te dafa mujj def parce que daa am urgence centre. li ma doon wax a ngi ñëw xamoon naa ne dina am problème fu muy liggéeyee kan moo fiy nekk di ko defalati rek. mën naa gis Emadé. léegi moom du baax dama bëgg a yóbbu Emadé ba village ngir jàmmam. pourtant tey Emadé daf wax dafa am rendez ci centre ba. dafa soxlawul di fa dem sax nekk jigéenu biir bu feebar te du yow sax yaa may diggal luy ëmb. dinaa ko toppatoo ba xelam dal. comme nga def ak sa fejkat ba. moytuma ngay insolente sama kër ba léegi maa fi dogal te bëgguma sax Amady di nekk ak ñu xamadi ñu mel ni yow. xaaral tante ma dem ranger course waaw kay ci fii la ñuy dalal jigéen ñu ëmb ñi ba pare fii lañuy ñuy defee seeni visit ci beneen salle bi ci topp lañuy ñuy wasine sax fii lañuy ñuy toppatoowee xale yu ndaw yi ak ñi matagul. Euh, Moulay bërëb bi moom néew na la set na waaye itam tumuraanke na. waa lu tax nga bàyyi Korsa muy jiite nii. moo fi nekkoon moo tax te mu Moulay dafa jaxasoo. exil euh, yaay. ma présenté la yaay. ah ziar naa la soxna si. mooy jëmmu ratanga. bëri na macha allah. dafa nekk sage femme. Mhm. te mooy wuutu léeg-léeg gestionnaire centre bi. ah kon kañ moo ñu waroon euh, wan kër gi alors. <laughs> na nga def waaju baax. maa ngi fi soxna dama doon toppatoo lu jëm ci pharmacie bi. ah d'accord sama xel del na bu baax. ndax Korsa mën na ma fi nekkal. Ah, waaw waaw waaw loolu dëgg la dëgg la. mën nga agsi. Euh, wax ma Moulay. ñaata sage-femme ñooy liggéey fii ci centre bi. am na équipe bu yemamaay ñeenti sage-femme ak yaay comme chef yenn saay ndax amaguma gestionnaire santre bi. Ah, gis naa ne yaa ngi mën a tànn ba tey te ñi la wër itam <laughs> soofu ñu. fii mooy saalu. damaa war a dem kër ga léegi ñëwaat. yow nga xaar ba léegi nga naan ma. mais dafa yàkkamti asitam faw ma wuy ji léegi ñëwaat. na des fi laa wax bu fi jugee. waroon naa fekk ñu dem bu yàgg yaakaar naa li ma wax leer na. lu ñu fi nekkati di werante. jébal gaaw fii nag mooy pharmacie bi ñu ngi def lépp lu ñu mën ngir jox malaadi seeni garab saa su ne te ñuy bàyyi xel bu baax ci dencin gi ñuy denc garab yi ñoo ngi jëfandikoo ay garab yu bari ndax saa su duñu xam suñu malade yi yan garab lañuy soxla ba tax nañu am yaakaar lool ci yokkute centre bi ndax dinañu yombal liggéey bi bu baax sax ah, centre-attaque damay dem ak yéen centre bu dul seen oto bi du bouger fii doo ñëw fi may liggéeyee yaay kii du kiy doon sama sët noo dëgg la waaye defoo fa dara ay ay yaay comprendre naa la su ma jëlewul benn tere foofu ci visite ba dinaa ànd ak yow ci village ba ngir noppalu ni ko bëggee ok. bon dugal waaye bu fa indi benn histoire laa wax dégg ma ñu ah, bu dee lii de mooy dund couple dinaa yàgg doon célibataire. te boo leen xoolee. ngeen jugee ci tàggat gi mën ngeen dem di ko waxtaanee seen koñ yi walla seen biir kër yi. na def jigéen ñi nga gis fii dañ leen di tàggat ngir ñu nekk bàjjen yi gox yi centre bi. dañuy liggéey ak sunuy équipe ngir di saytu yaay yi ak seeni doom ci biir kër yi. loolay tax centre bi di am taxawaay bu yaatu ci wàllu paj mi rawatina nag lu jëm ci wàllu wasin bees yi ci biir quartier Ratanga. yaa ngi indi lu bees saa euh, baax na baax na. jërë ngeen jëf waay. waaye yaay baax na. ci li koy aar la contre kan yow xanaa yaay xaar maa ngi amade maa ngi ñëw mooy laboratoire bi. ah. te itam euh, mooy dooni ji sunu dencukaayu deret. wante nag mënaguñ fi denc euh, mbuusu deret yi. ndax sunu réfrigérateur bi dafa paan. ah. moonte ñaan nañu nag ba sonn programme national beneen bu bees. ah Moulay yow daal saa su nekk photo autorité la daal. mais fii sax moom benn technicien rek laa fi gis. ana ñi ci des. Euh, sa waay naka mu. ci lan ngay liggéey fi nga toll nii. Euh, euh, euh, kii du la mën a tontu ndax dafa dër nag ah. waaye nag ku xarañ la si liggéeyam bi ci wàllu gëstu deret xarañ na ci lool sax. waaw loolu la. Ah, kon ñu leneen. waaye Jean Paul foo toll ci xale bi. Ah, defal nañ ko lépp luñ ko nawal defal léegi denc nañu lépp lu ñu fekkoon ci xale bi comme ça bu yaay ji ñëwaatee pour bugg jël si doomam à part euh, morceau bi nekkoon si loxoom nañu bàyyi ci moom comme ça bu yaay ji ñëwaatee mu gën ko mën a xàmmee. merci ci visite bi amal na ma solo lool dina yombal sama liggéey. ngir ma jébbal sama xalaat waa ministère de la santé xam nga ni sama rapport nar naa am solo ci ndogal bi nar a jógee ci commission bi dama war a toog ci wetam di ko ñaanal lay wax ni waa ko dal eh ma ne fi laa wax mm, mm. ci biti eh ci biti waay mm, madame Corsa dimbali ma si il faut que nga gëmloo ko ni dama am jafe-jafe si ëmb bi. ma ni yow lu la dal yow paraloo ma. dafa bëgg ma dem wusi nii ci village ba et ça je yaramam daa neexul xanaa moo tax muy xalaate noonu ak ni nga mel. ma ni yow du yaa ma koy hmm, tëddal fii. tàlleekul bu baax mu ngoog wala. sama doom fii lay liggéey. nga mu ci genre centre bu dee nii tamit yaa ngi fàttaliku li nga doon wax ci université nag damay créer benn clinique privée ak yi ci ànd yëpp am kër am oto jabar <laughs> tey ana loolu lépp. addina yar na ma. <laughs> doo ci génne noonu xam nga ko sax. lan moo la dal ba ngay yóoxu nii yaay. acca ñëwal way ñëwal. naa la jàppale ba nga bokk ci clinique bi sama gars yi di waaj a monté foofu am na xaalis ndaxte ay jongama yu féex ñoo fay faju si moo gën bii tout nga bëgg a suul sa bopp yow tamit yaay bëgg naa la trop mais naa la commencé bañ fii laay liggéeyee man amoo droit ñëw fi di ma weer ci samay kanamu patron léegi moom nekkatoo ponkal mi yombatul metti na ndax mënatoo maa kaañoo man te sax nag dinga nga mujjee di ma gërëm wala déet lépp aaju nag ci sama kaani bu ndaw bii <laughs> di ma déggaat sa waay ngir ba mur faaw jabar ju baax pour taala doy na dama sonn man dafa am sax benn problème moo tax ma bëggoon ñu waxtaan fu kenn nekkul yaay. doo ma wax ni danga bëgg bàyyiwaat suñu centre bi xanaa. non du man waaye mun lay lay xalaat mu jóge fi te faw ñu def lépp balaa muy def erreur. mais lan ngay wax ni. Ferdinand Diop mii dama ko wóoluwul dara dafa ñëw ngir indil ay jafe-jafe Moulay. ak lu ci mënti am man wóolu naa Moulay. te wër na ma ni waa ji du am lu mu bëgg. yaay te góoma de Jóob daa ñëw rek pour defante ak mu laay te damaa xamul lu nekk seen diggante nag. waaye loolu lu yàgg la. mais yow lan nga may wax ni man maa leen dégg mu laay yaram bi dee si saa si. surtout Jóob bi mu ko doon fàttali ay projet yu mu amoon ci ubbi clinique oto ak jabar yu rafet. ah yow loolu yaa ko dégg. leer na ma ni mu laay dina fi jóge il faut que nga xam ni. mu Moulay dafa ñàkk jabaram ak doomam ci accident bu mu defoon te dëppi bés boobu la dundam jaxasoo mu soppeeku doon keneen ci la bàyyee dundu naagu ak xaalis bu yomb bu bari bi daan jóge saa su ne ci clinique privé yi léegi nag ci la commencé di gëna jàppale ñi ndóol waa yéen a ngi nekk ci deru nit ñi rek ba nii. di wax si yow kañ ngay bàyyi ñaaw njortu nag pour yow ku weet rek ci yow lay wax Korsa. arrêté leen yéen it am nañu beneen problème bu gën a doy waar ah oui ban problème xanaa jóg ndekete dafa am problème bu yàgg ak mu Moulay te xam naa ni jamono yi bu ñuy nekk euh, université la assistant moo dégg seen i wax te li ci gën a doy mooy daf ko doon wax démbam ci docteur bu naagu woon bi laata muy def accident te comme dafa am doole ndax mooy saytukat bi euh, daf koy wóor ni lu ko neex lay def ci nii maa ci na Jóob nii ma gis du bàyyi mu sedd nag te suñu moytulee ñàkk mu laay ak boppam bu rëy boobu mel ni marmite nag <laughs> may ma place <laughs> sama boppam bi yow tamit di yëpp wax si Ferdinand du mu mën a def li nga wax am na solo lool wante am na lu ma dese lu bari ci Ratanga mënuma fa jóge noonu ci demin bu ñaaw xam nga ma <laughs> sa xuuxal yooyu tiitalu ma dégg nga man itam xam nga na ay wéeruwaay